waa tey comme que ñëpp xam nañ ne Ndakaaru taw na euh, ci altine bi passé euh, bi mu tawee mu amoon ndox mu ñu jot mu xaw a takku mais bi ñu ñëwee après taw yi gis nañ ne ndox mi ñu fa fekkoon ndox mi dem na fii ci département de Rufisque ndax li muy taw yëpp ñu ngi jokkoo ak gouverneur préfet sous-préfet ak maire yi ñu nuy wax la situation mais gis nañ ne ndox mi bëri na lool mais bi mu tawee ba pare am na lu bëri loo xam ci ndox mi évacuer nañ ko donc loolu mooy wane rek ne am na benn résilience boo xam ne nii développé nañ ko ci territoire bi pour ñu mun a jàkkaarloog jafe-jafe inondation loolu bu wéyee ñëw nañ aussi xool si liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko fii si département ndax daaw fii dafa nekkoon zone bi gën a am ay jafe-jafe ci wàllu inondation muy zone Kounoune bi Sangalkam bi Tivaouane Peulh Bambilor zone yooyu yëpp nag ñu ñëw fii tey ndax état bi dafa am ay travaux yoo xam ne président de la république daf ko santaane santuñu ko ñu ñu taxawal liggéey boobu noonu euh, pour fexe soulager population yi bi ñu ko sante mu nañ ko ak sunu ministre au assainissement mu nekk liggéey bu def ci base militaire française ñetti bassin yu mag ni ñu ngi ko fay def génie militaire di ko réaliser ñu nekk ci liggéey lool ndax bassin mi daan jëm ci biti ak ci kër yi recueillir ci biir base militaire mu ndox aussi moo daan daw di ñëw ba fii ci fa terrain wax terrain hectares DPG yi pour def bassin bi fa jógee dem nañ tamit Bambilor nga xam ne daaw aussi amoon na ay jafe-jafe ci wàllu inondation waxtaan nañu ak mairie bi ba ñoom joxe nañu foofu aussi terrain boo xam ne war nañ fa def bassin fii ak semaine prochaine ñu mun a fexe ndox yi daan sonal askan wi ñu mun ko drainer mu jëm foofu suñu paree ñu xool ñu koy mun a yóbboo mu dem euh, ci topp ba mun ko yóbbu géej donc ñu ngi fii présentement si toolu euh, Ahmed Khalifa sëñ Ahmed Khalifa Niass mu jox ñu aussi état du Sénégal tolloog ñaari hectare fii ci terrain bi mu yor fii si wuti Lac loolu nak bo nous ñu diko def moy daw Lac dafa dund ay jafé jafé ci ndox mu ëpp mu fi ñëw ndax quantité aussi quantité exceptionnelle Dakar moyenne bi daan cumul pluviométrique entre 300 et 400 maximum mais daw jot nañu 800 lu ëpp région de Dakar nak jur na ay ñu

Yep, yi nga xam am comme activité ñu fexe ba loolu Nous mun fa sàmm loolu président de la république loolu aussi ñu ak autorité nga xam département bi muy préfet département muy sous préfet ak maire yi fi nekk donc particulièrement maire mairie de moom mi ñu dalal fii nii donc ñoom ñëpp ci collaboration ci boole suñu doole ñu bëgg ba jël ay mesures yoo xam dina soulager population bi ci